waaw asalaamaaleykum ñoo ñu ngi jaan yëpp waaw dafa am démb rek maanaam benn membre bu nekk Pastef bu may interpellé na ma en tant que yow Mass nan nga mën a bokk Pastef nan nga mën a bokk Pastef bi nu nga woo ci boobu ba léegi ma di la xamal ni Ousmane Sonko dama ko koo xam à travers ses discours ko jox loxo musuma ko xam muy dem élection ma làmb sama poste joxe pour mu dem élection comme ni ko ni ko maa comme ni ko waa Pastef ñëpp defee waaye ne Ousmane Sonko dama koo juddul woon yëruma ko dëkk ma moom bokk ma ak moom kër ba xam lan lan la war a capable ak lan lan la war a def kon loolu moom mënuma lu dul maandu ci di xaar ko mu ngi loxo yoon yoon def ci liggéeyam li li war ab jullit nag maa ngi ci mooy Sadio am njort rafet ci moom su dee aji saar la sœur la doom la dama doom bu jigéen dama am ay rakk jigéen dama ay cousine tey natt buy tey bu daloon si kawam it franchement pas du nekk lu neex kon soit nag moom daf koo sosal ak sosalu ko kooku yoon moo ci def liggéeyam li ci des saa yi suñu àggee ci yàlla su borom àtteel boppam waaye nag du tee nañu am ci bénéfice de doute ci ñun ñëpp que ce soit moom dafa bi ñu koy seq ñoom woon wala daf ko ko teg ci waat di teg sama loxo ci kaamil na Ousmane Sonko violé ko wala Adji Sarr moo wax dëgg damay bàyyi yoon def liggéeyam Ousmane Sonko nag dama ko topp parce que sax ay ma doy dama jàpp ni mën naa indi changement ci réew mi waaye man ku ma xam-xam ni carrément kenn mënu ma manipuler kenn mënu ma fabit du ma jënd wala wala nga may wax loolu lu ma xamul lépp lu may wax dama ko xam Ousmane nag dafa am liggéey baree baree bare bu ko bëgg a jàppale mais pour ñu mën ko ko jàppale il fallait que dossier bi leer naññ ba pare parce que nag ñàkkuma mate di mate di gu toll ne di défendre ak violeur xalaatuma ko man man Mass Gueye fekkee yoon yoon dafa teg moom li nga koy li li teg ci koom dara dara takkawu ci man je vais le défendre du ma yem kese di joxe sama alal mais damay génn ci ne bi défendre ko parce que sama leader la mais nag ànduma ak na ko def ay njuñ njuñ ay njuñ njuñ ak ay njuñ njuñ Ousmane Sonko moo war a jóg instant bi pour yoon yoon seetal leeral ko mu leer nañu dossier bi parce li mu war a jaral saa parti ban mën a jël a jël ay ban internationale bi di ko braqué Adji Sarr mu ciy wax parce que ñëpp xam foofu yombul waxe fa yombul na jaral Sonko mu jogaat takku ñu leeral dossier bi ñun waa Pastef ñu ne ci jàmm ak salaam mën a porté parce que nag dossier bi saa bi ñun ñëpp la mettre mal à l'aise kenn ci ñun ko xam si ni da ngay wax rek mais kenn ku nekk gêné na la ñu ñëpp la si j'ai un peu c'est trop gênant quand même ñëpp la gêné kon ñuy ñaan encore une bonne fois Sonko mu jógaat xeexaat ñu leeral dossier bi saa ñu mën a su suñu liggéey ñun ñëpp mais encore une bonne fois man Sonko juddu lu ma ko ba mën a teg sama loxo ci kaamil ne violu Adji Sarr Adji Sarr mënu maa teg sama loxo ci kaamil ba xam carrément bi nga ko violé na ko surtout